wala mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen euh, télévision Pikine TV ñi ngi won fi nga xam ne moo nekk si diwaanu Thiaroye donc dañ fi ñëwoon nak fekk fi app lak gi nga xam ni metti na lool jaay kat yi nga xam ni ñoo doon yëngu ci walu ñoo nekkon fi donc sen place yi mo dal lak lakk Thiaroye buñ ko waxe sa xel dem ci euh, marché bi nga xam ni mo nek maquette bi fofu lañ ko dal di tuppee wante mun nañu wax ne bu ne ko nak ci commissaire euh, Sall moom mi nga xam ni fekk nañ ko fi dal dañuy xamal ne ñom lak gi ñu ko dal di yëk ginaaw ba 4 h jotté ba tégal fanweeri simili mais yàggul dara ñom 4 h 41 minutes donc ci len daal di yegg fi nga xam mo nek ci si euh, bi ngir daal di mën fay euh, safara si moom bu ñu sukkandikoo ba légui ci mom nañu 6 h 45 fekk na li nga xam mo nek euh, lak gi ñu ñu daal di ko fay wante lata lata rek ñuy fay li nga xam ne ni moo lakk gi daal dina am ay jafé jafé yu jéggi doyo bokku na ci li nga xam mo nek branchement clandestin mais aussi mbéd yu xatitim bokku na ci jafé jafé ak manam dugg fi nga xam mo nek ci biir caare yoy yooyu buñ ko bolé mu nek ay jafé jafé wante taxul ñom ñu jël ay matu jumtukaay yu am solo euh, fukk juróom-ñetti oto la ñu indi mu bokk si ñaari citerne yi nga xam ne nii dafa def ay ndox ak tamit euh, cinq cargon yi nga xam ne nii ñëw neen fi lépp rek ngir daal di fexe ba lakk gii ñu daal di ko fay si ni mu waree kanaa kay dañu bàyyi rek ñi nga xam ne nii ñoo loru si euh, lakk gi ñoom ñu joxe seen xalaat par rapport li nga xam ne nii moo leen daal di dal si fi nga xam ne ni yàgg dara ñu daal di dugg si tabaski lakk gi ñu ngi wax ni dafa commencé trois heures et demie ba léegi nii lakk gi gis ngeen ko mu ngi doog a commencé di fay mais li ñu am comme information au départ mooy dafa am benn filu courant bu lakk dal ci kaw balu fëgg jaay yi nekkoon ci raay bi nii exact foofu la lakk bi commencé doog a nag accès ci biir marché bi information bi ñu jot am loolu la mais mënuñu ko dëggal parce que bi muy am fekkuñu fi moom bu ñu sukkandikoo ba léegi si moom nee nañu 6 heures 45 fekk na li nga xam ne moo nekk lakk gi ñu ñu daal di ko fay wante laata laata rek ñuy fay li nga xam ne ni moo lakk gi daal dina am ay jafe-jafe yu dayoo lakk gi bëgg nañu ci enquête pour leeral ba xam lan mooy li ko sooke parce que en général li ñu xamoon lakk bu daan am ci biir marché bi la daan démarré mais lakk bi mu ngi démarré ci raay bi muy benn bi ñu ñëwee ci camp militaire bi ñoom dañu ne ay jigéen ñu doon dem ci hôpital bi ñoom ñoo ñoo informé leen ni leen raay bi marché bi mi ngi commencé lak déparé foofu di dugg ci biir lak yi am lu yàgg te information bi jallul pourquoi information bi jallul loolu lañ ñuy laaj lan mo waral loolu dèjà wax nañ ko suñu autorité pour que ñu ubbi ci enquête pour xam lan mo soké lak bi yak yak yu bari na euh, ay kay parfum xam nañ ñoo gëna birmi. ak mbir mi waye sapeur pompier yi ñëw nañu japp ci ak militaire yi ak commerçant ñom ñoom seen bopp am liggéey bu am solo buñ ci def pour maîtriser pour mën a ci marché bi yëpp waaye lu ñu ci jot a ñàkk rek commerçant yi ñoom seen bopp wax nañ ko wax mu ñàkk lu lu bëri bëri bëri bëri xam nga moom xa moom du duñ ko xayma bu nit ñu ko wax exactement xam nga ay millions yi moom ñàkk ñàkk nañ ko fi ndax ku ay boutique bu mu fees ay tissu kooku kooku ay millions la boutique bu fees ay ay ay loolu tamit ki te yooyu une vingtaine de lu mat euh, ñaar fukki cantine ñoo ñoo ñoo ñoo lakk kon xam nga loolu ay millions yu bëri la donc euh, ñun ñu nekk ci nguur mi tam dinañ leen jàppale waxtaan nañ ci préfet yooyu xool gouvernement bi tam lu mu leen siy jàppale euh, nga xam ne feet yi jot na déjà te baax na tamit ñu joy saytu mbir mi euh, yóbbu yëggal ko gouvernement bi pour ñu xool mesures yi ñu ci war a jël. ma ñëw fekk naa presque lakk bi moom daanaka sori na waaw mëntuñ ci dara am na lu ma jot naa see jéem sax am ba am yu ma jot a génne maximum am naa lu ma jot génne mais fekk boobu mun mëntuñ ci dara. waaw man ay blouson lay jaay ay mayo affaire yooyu quoi ay chemise ay bëri affaire yooyu. man nag maa ngi doon def divers ak euh, cosmétique waaw yooyu doon def. non non bari na bari na vraiment bari na quoi vraiment sama sañoon moom du ma nekk di wax som bi quoi non dara génnul dañ ko mujj maasale sax dara génnul si biir sappoor man fi laa leen fekk vraiment mais bi ma ñëwee tam aussi euh, ñoom amu amuñu woon accès pour mën a dugg ci àgg ci magasin yi pour fay lakk gi boobu ñu woon ci biti quoi mais euh, et puis seen ndox bi ma ñëwee boo fekk fekk moo ñu am ndox quoi après euh la dogo gis sen auto yi ñew andi ndox mais bo fekk na trop tard quoi fekk na affaire yi. dara jot ta savé lepp lak ba jeex dak doon nga xayma lu bare bare perte nan ko fi bat nañ fu lu bare bare mo nga xayma mom dina bari lol lol lol ay million yi million yi bare bare bari fi li fi si kenn mu la wax nim tollu bari na trop. ñoo ngi ñaan dimbal nak parce que nit ki mom fekke la nga ron da lak ba jeex tak te état ñëpp la fi nekkal te li ñu war ci dëkk bi tam ñu ngi ci def lu bari parce que ñu ngi fay impôt ñu ngi fay juuti kon nag suñu suñu suñu yàqoo suñu sunu état ñëw dimbali nu jappalé nu loolu daal ñu ngi koy yaakar ci mom parce que métti na trop ñu ngi ci ñaan dimbala ko ñu jappalé suñu tam fi ñu nekkan comme fi leen nekkan fi leen xam suñu san dañ li fi bayyi défaral nu ko ba mu baax ñu ko ne suñu liggéey parce que nit comme fi nga nekk nga commencé commencé liggéey ba ak ci fi mun la yóbbu faña day metti déedéet fi amna sécurité parce que sa pour bi mu ñëw raay bi la jaar dafa avancé ba kon kooku amul problème sécurité amul benn jafe-jafe boo xam ne sapeur am na ko bi mu ñëw ñëw na ba jàkkaarloog fii lakk mu mën a roose kon foofu amul jafe-jafe amul benn jafe-jafe